qui connaît un Sénégalais connaît quelque chose de son frère de la métropole nous nous ñu fi dañu fi nous ngir nous bokk Tijani Amin dit conseiller qui ambassade Algérie ci Dakar mook Serigne Cheikh mi toog ñoo bokk turandoo ndax Seyyid Cheikh Ahmed Tijani lañu ko tudde ñu teg ca Mouhamad Samsahar di conseiller ci ambassade bu Maroc Maroc fa tabaarakallahu sunu digganteeg ñoom du nu leen wax nu nu toll ci nun ku laal marocain laal nga sénégalais ku laal sénégalais laal nga marocain teg ca sunu mbokk bopp El Bou Ahmed di premier conseiller bu ambassade de la Mauritanie diggante Sénégal ak Mauritanie néeg ak néeg la ëtt xaju fa booleeg fa tabaarakallaahu suñuy mbokki bopp di ay personnalité religieuse gënu cay tudd moo di sunu doomu ndey di le grand serigne de Dakar alxaaju Bachiru Jaañ di tuddit ki moom daje bi di Sidi Ahmed Sy bu Cheikh Khalifa ñu teg ci suñuy collaborateur di ay personalite politik tudd le maître Abdoulaye Wade PDS le professeur Ibader Cham, CDP PLP Dijetek laminjak PS Dijetek Elima RPS Dijetek elaj teg MSU ca teg Mamadou Diop Croix, andi jëf di parti écologiste euh, di service d'ordre suñu mbokki gendarme yi ci seen taxawaay ak li nu def mu nekk seen yéene bopp ku gis barab bi ni mu xate daa xam ni bu dul woon seen teey bu woon seen dal ñu bari dinañu sonn waaye ngir yàlla ak seen taxawaay ngir yàlla ak seen yitte fexe nañu fa tabaarakallahu ba lanu ci waroon rafetal ñu rafetal ko kon ñu sant leen cant gu amul ab sant seen chef yi leen fi yebal si mu mel ni nag sëriñ Moustapha am na lu mu wax doyoon na fa tabaarakallaahu Sëriñ Mansour am na lu mu wax doy na fa tabaarakallaahu dafa fekk nag wax bi du yomb ci man du yomb ci man moo di waxtaan la neex boroom kër te comme moom Seyid Cheikh nee na bu ko kenn jox benn titre bu ko kenn jox benn daraja d'accord nañu ci ak moom dinañu ko baalu ak li nu koy ak modi li nu ko ñaan mu waaw euh, ñu may nu ba tey ñu dellu si ci ñi nu doon sant muy le responsable de la foire e ñu sant leen ñoom itam ci collaboration bi sant leen itam ci seen taxawaay ni jamono bi ñu ko ñaane pour mu waxtaan ak njaboot yi dafa nekk jamono bu yombul ndax li tax mu jafe dafa dellu ci li Cheikh Al Hadj waxoon Hadj Malick dafa wax ni nee na bu ñépp dee wax nee na booba noppi jot na te itam yëg nañu ni réew mi ñépp a ngi wax kon bu nu ko ñaanee ni ko na génn dafa am lu nu yaakaar ci waxam moo tax mu mel ni itam wax na ni bu nu ko defal propagande euh, am na ku nu ko jàngal bañ a defal nit propagande pour mu gëm la maamam bu tedd bi Sëriñ Tuuba moo nu ko jàngal Sëriñ Tuuba nee na ñaar kenn du leen gësëm nee na bu ñoree rekk tàbbi pas-pas ak àddiya nee na kaay gëm ma jarula sonnal kenn moom Sëriñ Tuuba moo ko wax nee na ki yàlla dogal ni dana la gëm bëccëg dana ñëw mu sukk ci sa tànk jébbal la boppam nee na bu ko yàlla dogalul nag lang cay daj neena na ba la ngay yëg ni jàppoo ci dara mbete ka la gëmoon doyle ci yow nee na àddiya jarul sonnal kenn parce que ki la ko yéene foo nekk mën na ñëw ba fekk la fa yëkkati ko teg ci sa loxo mu mel ni du moom rekk moo bañ ku wax ci moom cër ndax sang bu tedd ba tëdd ca Medina daan na freine njabootam ni leen bu leen ëppal ci bu ngeen ma dee tagg laa tutru alayya kama atrati nasara an il ñépp kon d'accord nañ ceeg moom euh, du ñu wax lu bari ci cëram way ñu def ci benn seede seede bi moo di sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu moo ko wax moom sëriñ Cheikh ndax sëriñ Cheikh ku daan dawal sëriñ Babacar Sy tuuma la bés mu ñëw ci kanamam ni ko dama bëgg nga dimbale ma ci ñaar ni ko bu njëkk bi moo di nga may ma sama xol ma bañ la cee boole keneen maanaa sama pas-pas ma yemale ko ci sama digganteeg yow parce que nee na mënul tarbiye fukki nit mënu ko ku ko defit danga koo def waaye mënul nekk nee na Sëriñ Babacar d'accord ceeg moom ci bëccëg ba ni ko may naa la ko mu ni ko bi ci desit maa ngi lay ñaan yi ngi may doxloo ci biir kër gi dama fi am ñu ma mag ma bëgg loo may doxlooti nga sant leen ko ñoom ba noppi bu ca amee lu ma war dox ma door koy dox sëriñ Babacar Si ni tekk ba mu yàgg mu ni ko li may def xam naa ko muniko xamuloni bu fi sa mam Cheikh El Hadj Malick nekkoon di dund dañu fi jël ñun ñi mu jur di wax ak yow directement. muniko kon limay def xamna ko. kon bu nu jaxlé ci fi aduna tollu ndax. pëccëxoo bu xasee ba dugg yépp yàqu waaw fu mu duggee yépp yàqu te bu dee ci wàllu diine désordre dugg na ci bu dee ci wàllu àdduna désordre dugg na ci ñu yaakaar nag ni la daan am bu amee na mu daan ame bu waxee ci kàttanu yàlla yàlla dana ubbi bunt moom lanu yaakaar ci moom ba ñaan ko pour mu ñëw wax ak nit ñi mu mel ni itam coow li bare na lool waaye li waral coow li yépp lenn la mooy xëy suba bëgg dab koo xamul fu mu jaar veillem te it di faral di sant yàlla ci wàllam ndax ñi koy dàkk ñépp fa ñu ko dàkk nekku fa loolu la ko yàlla defal ndax léeg-léeg nga defe ni mu nga ca ay pexe mu nga ca ay pexe boo waxtaaneek moom mu ne moom day ku dégg mag ñi la cheikh alxaaj malik wax innama alxiilatu fi tarkil xiyal bari pexe mi ngi yem ci bàyyi pexe bari pexe mi ngi yem ci bàyyi pexe donc mën nañu wax ni cëram fa tabarakallahu bu nu ko tuddee ak bu nu ko tuddul la ko yàlla di defal defal na ko ko ba noppi te itam li maamam Sëriñ Tuuba wax ni booy wut njaboot wutal ku la gëm waaye nee na bul wut kuy farfarloo euh, loolu wëllëre boppam moo ma ko yónni ci moom di wëllëreem di genn wàllam ñu dund seen kóllëre nëbb ko ndax kóllëre boo ko dee dund te muy kóllëre bu am solo bu ko yàqkat jege dana ko xajamal kóllëreem bi mu amoon nag ñu di ko wax le professeur Cheikh ante Diop daf ma yónni ci moom euh, ni ma pàpp si rek la ma daan wax mu ni ma dama la bëgg yónni ci sëñ Cheikh Tidiane si mu ne ma wax ko ni ko li ma li mu bëgg mënuma ko moom Cheikh Anta mu ne ma wax ko ni ko li mu bëgg mënuma ko mu ni ma ndax dafa bëgg waxtu wu may dugg ci saalam dugg ak sama dàll mu ni ma wax ko ni ko mënuma dugg ci biir salom ak sama dàll mu ni ma ndax murit convaincu la ci laa judd mu ni ma preuve bi mooy seen maam Cheikh Anta la ma tudde mu ni ma bi ko ñaareel it biñ ma juree ci biir mouridisme gëm naa la mouridisme te bari man man yóbbuwuma ci mu ni ma kon wax ko ni ko ba ba àddunay tukki du ma dugg ak sama dàll ci biir salon moom professeur Cheikh mu teg ca ni ma ñaari logique rekk laa jàng mu ni ma logique bi son bàyyee ma ko jàngal logique bi ci des nasraan yee ma ko jàngal mu ni ma dontale logique bi ma nasraan yi jàngal ci lay dund bi ma son baay jàngal laa gën a fonk ndax mooy mujj mu ni ma te son baay ne woon na ma ku la ëppati cër jox ko ko waaw mu ni ma son baay nee na ma Cheikh Anta ma ni ko Mbàkke mu ni ma cër kenn du ko gént des cay dëju gént waaw ndax moom fa tabaarakallahu bu nu ni woon tey dañu leen di wax mooy kan lu ñu leen wax rekk am na lu mu yëg ci boppam lu ñu xamul te itam lépp loo xam ni kilifa aada dana ko tiitaroo ci réew mi boo ko ko defalee moom mu jéppi la boo ko nuyoo jox ko ñaari loxo mu jéppi la walla boo ko joxee ñaari loxo mu jox la ko bu boo fa jógee jàngiwaat nu ñuy nuyoo boo ko nuyoo summi sa dàll mu jéppi la parce que foog nga xam mbindeef bi yàlla bind ban importance la am waaw ku ñëw dénk la boppam ngir yàlla ak yonent ba bala nga koy won dara won ko boppam nu mu toll moom moom njaboot bu mu am yaa tudde sa bopp njaboot walla nga tudde sa bopp surga waaye moom jàppewu la surga responsable la la jàppe waaw ba tax na fa tabaarakallaahu loolu ci lu nu leen mën a wax ci moom la ndaxit bu ñu fi nekkoon di ko wax ba ëllëg du tax ñu jeexal li nu foog ci moom waxuma li nu xam ci moom waaye li nu foog ci moom mu mel ni itam mboolem ñi fi daje te nekk ay njabootam ku ci àndul ak moom ngir yàlla ak pas-pas ndax na ci ñoo xam ni bañ koo gëjee teg bët léegi ëpp na fukki at waaye fa tabaarakallaahu yàllaa ngi dogal suba suñu xëyee seen pas-pas ci moom dafay gëna a yokk ñoo toogaat juróom fukki at yuñ ko dul gis seen pas-pas ci moom dafay gën a yokk mu mel ni nit ki la ni daf la koy jàngal te xamu ko dafa bëgg nga réere ko ba faw parce que du la wax mooy kan dama gis war na mat ñaari at ñu dajale ay xale ci tugal ñelee nga am fukki at ak juróom ñett nga am fukki at nga am ñaar fukki at ñu ni leen dañu leen di laaj ndax xam ngeen kilifa gu fi nekkoon fii ci France ñu di ko wax le général de Gaulle

avec un képi. C'était un mec avec un képi. ñu ne nañu laaj ci mag ñi ndax Nous ko xam ñu Nous ku wax Jacques Chaban Delmas Nous ne ko kan général de Gaulle jiitu lu jiitu mu tontu rankoñam dal ci kaw dënnam mu wax nii général de Gaulle moi ki nga xamni kérok ba mu ci Paris libéré jaar ci sama tour, jaar ci sama wax ma ni merci Chaban kérok la japp ni luma doon ñaan de Gaulle xam ma koku ci benen gisin de Gaulle budul un mec et un képi won leen ni koo laaj ku ko xamul mu réer la ba faw loolu la yàlla dogal moom nag Sayid Cheikh bu dee am na ku ko xam mag ñi ko fi bàyyi rekk ko xam la yàlla dogal fa tabaarakallaahu eh, ba tax na ñi ngi dellu di ko jéggalu ci kàddu yi ñu yëkkati ci suñu digganteeg moom waaye ci kàddu yitam mu may ma man personnellement may yeesal sama pas-pas ci moom yeesal sama engagement ci moom yeesal ko ci njabooti boppam yi mu am xamal ni itam sama pas-pas du ko yemale ci moom doom bu mu am ka ca gën tuuti bu ma ko gisul moom bu taxawee ci sama kanam mooy doon moom ba ba ma koy gisati maa ngi koy xamal ni itam dégluwuma kenn ku dul moom maa ngi koy xamal ni itam lu mu joxoñ image am laa ciy gis te lu ma ca wax dinaa ko def maa ngi koy xamal ni itam lii ma wax lu jiitu ma seddaloo leen ko yéen sama diggante ak sama borom laa ko wax maa ngi ñaan yàlla nag ku ne sañ na ko yàlla bu ma ci sama bakkan nattu yàlla duma ci nattu mukk parce que d'accord na ci ma nekk njabootam waaw kon bu ma fakastaloo rek sama bakkan a ma nattu te du am ci kàttanu yàlla waaw parce que li ma engage xam naa ko am na yu lu ma foogit ci moom yàlla na ma ko yàlla defal fa tabaarakallaahu am na sang bu fi ñëw di suñu sang ñun ñépp di shérif Atqana Haydara ndax sëtu yonent bi la kon nag bu fi teewee fa tabaarakallaahu teraanga bu fi génn moo ko moom ngir yàlla ak barke maamam sant itam dañu tuddul woon léegi ndax seen tur nekkul woon ci kayit biñ nu jox muy RND fa tabaarakallaahu ñi fi daje ñépp ñépp ñépp ñi ngi leen di ñaanal yàlla li nu yaakaar ci bëccëg bi yal na yàlla defal nu lu ko ëpp am na nu ci yaakaar ci biir am na nu ci yaakaar ci biti ah, kon nag ngeen may nu ñu yemale suñu kàddu foofu ah, euh, ngeen may nu rekk ñu tudd ñu tudd euh, sëriñ bi ñaari yaayu daara la amoon moom sëriñ Cheikh muy soxna umul xayri ak soxna umu kulsum waaw soxna umu kulsum a ngi nii toog ànd ak tabaarakallaahu maam sëfiyatu tabaarakallaahu ak ñi nu àndal kon ñu wax sëriñ bi rekk ni yaayu daaraam a ngi ci biir saal bi mi ngi jotal nuyoom di jotal ziyaaraam ñu di la seedeel ni nag lu nu nekk ñook mooma ca nekkandoo lu ñu dugg ñook mooma ca duggandoo waaw bu dee guddi bu dee bëccëg du ca tàyyi dara waaw du ca tàyyi dara te bërki démb moom sëriñ Cheikh mi nuy wax ni sëriñ Moustapha si Jamil ba mu faatoo ba léegi duma tëdd semaine bu ma ko gisul ci gént mu ni ma te bu ñëwee dafa may wax ni ma waxal xale yi ñu def nangam li xale yiy doxal léegi Serigne Moustapha nga ca Barzak di ko communiqué ak Serigne Babacar si ñu di ko ko wax moom mu di ko jox xale yi pour woon la ni ku sell ànd nga ak moom waaw ku sell laa wax waaw ku sell ànd nga ak moom waaw ku sellul nag yaa xam waaw mais ñi sell laa wax yàlla def nañu ñu ànd ak moom ku sellul nag yaa xam fa tabarakallahu ñu ngi yemale suñu kàddu foofu ndax itam bëggunoo eh, xëtt char te nit ñi ñoom boo fi jógul rekk duñu bëgg waaw kon ñu bàyyi moom mi nga xam ni moo indi teemam waxtaan ak yéen lanu ci yaakaare yal na nu ko yàlla woon yàlla boole nu defal jàmm bi rekk jàmm bi biti defal nu xéewalu biir ak xéewalu biti اللهم صل على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته